c'est Al Haïbou TV la télé qui te pousse à télé bi moo lay xalaat loo Al Haïbou TV. askan wi ñu ànd jëriñ askan wi bañ a ànd kompaloo ngir jëriñoo askan wi yàlla loolu amalu leen jëriñ amalu njëriñ yàlla bu leen ci yàlla xeer ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi yàlla na yàlla. Euh, yërëmal ñu suñuy way daw suñu way jur yi suñu bokk yi suñu wëllëre yi ak bokk jullit yépp yàlla yéegal ci barsax seydina muhammad seen bàmmeel yàlla doon xaarukaay àjjana ci barke seydina muhammad sal allahuma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu yàlla na yàlla sàmmal suñu diine suñu ngor ak sunu bokk yàlla bu mu xajam àdduna yàlla bu mu xajam alaaxira ñu nekkoon di wax ci euh, maanaam wàllu jigéen ndax euh, tubaab dafa xamoon xeex bi nu muy demee damay wax ni ñun mi ngi mel ni nit koo xamante ni fi mu ne nii maanaam tubaab dafa commencé dem duggi ñëw togg ba war a yàq fekk ñuy nelaw ñu xëy yeew rek naan bu mu ko fi duggee ñun noonu lañ toll waaw bu mu ko fi duggee fekk moom mi waa ci yàq la toll euh, ba mu jugee ci jigéen dafay dafa yàgg moo tax euh, borom bi subhanahu wa li mu gëmloo ni tubaab gëmloo jigéen surtout jigéenu jullit ni ko lislaam dafa la ginnaawal jël góor teg ko ci karam du dëkk ndax nasu alquran moo koy weddi waaw man amila saalihan min dakarin aw untha la yàlla wax wa huwa mu'min fala nuxyannoo xayaatan tayiba yow góor ak jigéen kenn ku ci nekk bu xamee responsabilité am li ma ko sant ci kaw suuf mu def ko bu ñëwee ëllëg dinaa ko teral ba mu xam ne am naa teraan loolu yàlla wax kon yàlla amul benn distinction bu muy def ci góor ak jigéen ci am ku muy faral déedéet kenn ku ci nekk dafa am mission bu mu la sant bu mu santul sa borom yàlla nee na ku réussir sa bas boo dikkee di nga xam ni defal nga def nga def nga la nga war a def di nga taseeg dara ku mën a teral nit waaw loolu moom mooy kon jigéen na xam war a goram taxaw ci góor na xam war a goram taxaw ci mais bu kenn xool sa bas morom bu ko defee loolu la lislaam seetaan waaye dafa ni ar rija bi gën koo feelu ni ar rijalu shaqaiqu eh, eh, annisa shaqaiqu rijal mu ni jigéen ñi dogitu góor ñi lañu kon war na ni góor mënul dem sans jigéen jigéen mënul dem sans góor kon kooku war na ni affaire discrimination amu ci waaw affaire faral amu ci mais responsabilité wuute la moo tax tubaab bi fa mu ñu jëkk a xeexe mooy ixtilaat moo tax genre bi fa mu ko liggéey dafay àgg genre bi ñuy dund nii tey ba mu ne école yi nañ jaxase góor ñeeg jigéen ñi ñu toog nangu ko boobu la affaire bi jafe foofu la boobu la doon ji genre bi boobu ji sax na léegi sax na ba meññ na mi ngi sax waaw mais foofu la problème bi nekkoon ñu nangu ko yàlla ni yonent bi ni nañu tàqale góor ak jigéen ndax bokkuñu responsabilité do question fiir dañu bokk responsabilité méthode yi ñu leen di yare bokkul ñu ne non non yonent bi dafa juum nañ jaxase. ñu ne wax dëgg tubaab bi wax ngeen dëgg yonent bi moo juum nañ jaxase ba tey jii boo teqali woon ñu ne waa lu tax nga teqali parce que euh, waaw waaw boo tax ñun dañu jekku waaw dañu jekku lool ci domaine yu bari nag waaw ndax ci njaal benn lañ ñu naxe def yi yonent bi nii nii la ñun leen yonent bi dafa juum du noonu nii la lii mooy yoon ñu nangu ko di def loola moo tax bi ñu trahir yonent bi yàgg na waaw yal na yàlla musal nag delloo suñu xel yi ba ñu xam ni fi nekk tooba bi ñu topp kot kot yoon yoon yi fa mu jëmee ndox amu fa waaw yal nañu yàlla teel a gindi ba ñu teel a tëpp ndax lii jëmul kër lii ñu topp fa mu jëmee ndox amu fa moo tax jigéen il faut nag man doy na ci jigéen rek lenn rek suñu ko réussiroon fexe ba xamal jigéen ne ko yow la yàlla sant nga yaral ko nit. loolu dina jur ñaar mooy jigéen xam ne responsabilité am rëy na warta fooye boppam waaw buñ ci xamalee jigéen yow la yàlla tànn ngir nga yaral ko nit pour mu tekki loolu dina tax jigéen gën a xam ni moom responsabilité am rëy na waaye taxawaayam it war na taxaw waaye li na jurit leneen ci góor dina góor jóor góor mu dolli yërmandeem ci jigéen ba dimbali ko pour ma rëy sur waaw ndax li maa nit yi dee xatul yàlla nañu yàlla defal loolu nag wasalaamaaleykum wa rahmatullah